allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wa zidna cilman alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushur assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy émission ya ñuy yi ci waxtu wi tey ñu fas yéene sof beneen bunt bu bees bunt ba jiitu woon xam ngeen ne boroom xam-xam bu mag di xasnul basri rahimahullahu ta'ala moo baaxe xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kàddu gu dëgër kàddu gu baax nasiha boo xamante ne foo ko takk wesu na ko mu ne yow doomu aadama bi innama anta ayaamun kullama zahaba yowmun zahaba baaduk nee na yow doomu aadama bi de xamal ne bés ya ngay dund mooy sa waxtu bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ni sa dundu wàññeeku na moo tax mu ne ibnu aadam yow doomu aadama bi innama anta ayyaamun xamal ne de lala fi tax a toog lala tax a nekk lala fi bàyyi mooy bés ya ngay dund ba tax na na nga bàyyi xel kullama zahaba yawmun bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne zahaba baaduk am na la wàññeeku ci sa dund boobu ba tax na mbokk yi yéen mi ñuy topp ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu suba si xam leen ne bés yooyu di jaar di jàll kenn ku nekk ci ñun war nañoo war a mën a bàyyi xel lañuy njëriñ ci bés boobee ba tax na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma yàlla yónni ci xeet bi salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi moo ñu baaxee ci xadis abdullahi bnu umar radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal ahabu nnaasi ila llah anfaahum linnaas xadisun saxiix axrajahu albani mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen bés yi nga xamante ne doomu aadama bi da koy dund te ñu di bés yoo xamante ne dañuy ñëw jaar di jàll am lay wàññeeku ci dundam am la nga xamante ne dootu ko dabaat ci dundam ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma yàlla ci xeet bi ci xadisa abdullahi bun umar radiallahu anhu yonent bi nee na ahabu nnaasi ila allah anfaahum linnaas xadis bi la muy tekki mooy sallallahu alayhi wa moo ñu baaxe ni ñu ahabu nnaasi ila llah ka yàlla gën a ci nit ñi ka yàlla gën bëgg ci nit ñi ka yàlla suñu boroom tabaraka wa taala safoo ci nit ñi ki ko bugg xam topp ci waxtaanu suba si fii jaar fii ci réew Rewmi FM 97.5 su ko defee ñu bokk taataan ñu bokk xerewlu ñu bokk xam ka yàlla gën a sopp ci jaamaam yi ku am taar la yàlla gën a sopp ci jaamaam yi déedéet ku am alal la yàlla gën a sopp ci jaamaam yi déedéet moo ana kan la yàlla gën a sopp ci jaamaam yi kon nañ leen bokk déglu lañ suñu yonent bi joxoñal fi yonent tegtal bum ñu joxoñal fii mu ne ñu ahaba naasi ila allah te yàlla gën a sopp ci jaamaami mooy anfaahum linnaas allahu akbar mbokk yi anfaahum linnaas la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam sang bi nee na ka yàlla gën a sopp ci jaamaam yi mooy ki amal nit ñi njariñ mbokki yi xadis bi ni mu tënkoo ni mu gàttee ni noonu la ëppee solo noonu la bari ay maana ka yàlla gën a sopp ci jaamaam yi bu dee yonent bi nee na mooy ki amal nit ñi njariñ kon nañ leen taxaw tuuti xool ana ban njëriñ lañ amal suñu société ba ñuy dund ana ban njëriñ lañu am ci gàlle bu ñuy dund wala ci kër ba ñuy dund ana ban njëriñ lañu am ci liggéeyukaay ba ñu nekk di liggéey waaye ana ban njëriñ lañu amal suñu mbokk dëkkandoor ya nga xamante ni yàlla dogal na ñooñu lañu bokkal koñ dëkkandoor ak ñoom su ko defee nattal sa bopp ci xadiis bi xoolaatal sa bopp ba xam amal nga nit ñi njariñ bu dee waaw alhamdulillah ñu bokk sant yàlla mën nañu yëkkati suñu loxo ne bokk nañu ci ñi yàlla sopp subhaanahu wa taala ndax ki mu yónni ci askan bi ki mu yónni ci xeet bi ki mu yónni ci jaamaam mi moo ñu ne ki yàlla gën a sopp ci jaamaam yi ki yàlla gën a sopp ci nit ñi ki yàlla bëgg ci nit ñi mooy ki amal nit ñi njariñ kon képp ku amal nit ñi njariñ sañ ngaa yëkkati sa loxo ne bokk nga ci ñu yàlla sopp kon kenn ku nekk ci ñun muy man muy yéen mi ñuy topp ci waxtaan wi ngalla nañ leen bokk amal nit ñi njariñ su ko defee ñu bokk ci ña yàlla sopp subhaanahu wa taala kàddu gi nag mën nañ kaa déggee ne yonent bi sallallahu alayhi wa ma yàlla garantil kàddoom ne kii du waxantu wax du waxu gisaane kat wax bi du waxu buxaaba du waxu philosophe du waxu scientifique walla kenn ci intellectuel yi kii waxu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne yàlla moo garanti kàddoom ne laa yantiqu anil hawa kii du wax ci coobare ba kenam sallallahu alayhi wa ba tax na noonu la xuusandi andil leen ñaareeli buntu ci suñu waxtaanu suba si muy jaar fii ci réew mi fm 97.5 mbokk yi ñaareelu buntu bi mooy jikko ju noobul bi nga xamante ne sallallahu alayhi wa moo ko yar ci àndandoor yamu ak ñoom ca jamono ñu doon ay saxaabatu kiram ridwanullahi alayhim ajmain saxaaba yooyu kenn ci ñoom di abu bakrin siddiq radiyallahu anhu wa ardah jikko ju noobul ba bi yare sallallahu alayhi wa sallam moom lañ leen bëgg dëgtal ni bi iznillahi subhaanahu wa taala jëli nañ xadis bi ci saxaabi bu mag di abi hurayrata radiallahu anhu abi hurayrata radiallahu anhu nee na anna rasul allahi sallallahu alayhi wa sallam qaal jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toogoon ak ay saxaabam mu ne man asbaha minkum al yowma ana kan ci yéen moo jàpp or tey ana kan ci yéen moo xëy mu di aji woor ana kan moo woor tey bés ana ku ko woor qaala abu bakrin siddiq ana saxaaba bu mag boobu ñu leen tuddal sànq di abu bakrin siddiq radiyallahu anhu yal na ko buur yàlla gërëm mu daldi di yëkkati loxoom na man woor naa tey yow mi yàlla yónni xaal yenuntu bi daal di laaj fa man tabia minkumul janazatan al yawm ana kan moo topp néew dem gunjee ci kiram ju mujj bi ana kan moo topp néew dem robi ko tey ku topp néew ci yéen tey topp néew mbokku jullit bu faatu tiyaabu ba ca nekk nginil ba ca nekk buñ ko xamaan kenn du dégg ñu tàgge la nga toog di jóg sol say dàll dem gunje néew boobu ci këram ju mujj jikko bu noobul la tiyaaba bon si fàggu ku ko xamoon kenn du dégg ñuy tàgge nit nga ne cel te demoo waaye ñàkk koo xam moo tax ñu di ko defe comme niñ ko gisee keroog yonent bi laaj question bi ni mel fa man tabia minkumul yawma janazatan anakan moo topp dem gunjee néew ci këram ju mujj bi qaala abubakarin siddiq radiallahu anhu ana abubakarin siddiq radiallahu anhu daal di yëkkati loxoom ne man def naa lii tey gunjee naa mbokk bu faatu ci këram ju mujj bi wax loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi daal di laaj bi bi léegi mu laaj ne fa man at'ama minkumul yawma miskinan ana kan ku joxe ñam jëmale ko ci njabootu yàlla ba ñuy dippee miskiin waaye joo xamante ne loxoom joteewul ginnaawam sañu laaj mënut laaj waaye nga gëstu ba xam ni kii de soxla na la muy dunde nga jënd dund jox ko wala nga togg ñam jox ko ana ku def jikko ju noobul bii tey qaal abu bakarin siddiq radiallahu anhu ana abu bakarin siddiq radiallahu nee na yow mi yàlla yónni man tey def naa jikko ju ni jëf naa jëf bi tey jox naa miskin lamuy muy dunde bi maanaa jox naa ñam waaye yàlla ba ko soxla qaal yonent bi laaj ba léegi fa man aada minkum al yawma maridan ana kan moo dem nemmeeku mbokk bu feebar ana kan ku dem nemmeeku aji tawat qaala abubakrin siddiq abubakrin siddiq radiallahu anhu nee na ana man tey def naa lii dem naa seeti mbokk bu tawat mbokk yi la yonent bi laaj nii abubakar siddiq radiallahu anhu di ko tontu lay waral laajte bi ak la waral tontu bi ki ko bëgg a xam nañ leen ànd waxtaanu suba si fii jaar ci réew mi FM 97.5 ñu xool mujjantelu question réponse ba jaar diggante yonent bi sallallahu alayhi wa ak saxaabi bu mag boobu di Abubakar Siddiq radiyallahu anhu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa yonent bi daal wax ne sallallahu alayhi wa sallam majtama'anna fi mri'in illa daxala aljanna rawahu muslim sallallahu alayhi wa sallam wax ne jikko ju noowul wii mënut a ci benn jëmm doomu aadama lu dul yàlla dina ko tàbbil aljanna allahu akbar ndax jikko jikko ju noobul lañu geste bu noobul lañu képp ko dëkkee képp ku ko yàlla man loo xamal ne man loo na la lu màgg loo xamante ne kenn xamul dayo bi nu mu toll ndax yonent bi sallallahu alayhi nii la yaree saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain mbokk yi bi liñ ci war a mën a jànge ci ay maani bari na lool waaye nañ leen góor-góorlu ñu tënk ko rek ci waxtu bu gàtt bañ ñu ci cirale ci waxtu bi la yonent bi laaj sallallahu alayhi wa sallam ana kan moo di aji woor tey bés bi ñu xam ne koor dafa bokk ruknun min arkaanil islaam woor dafa bokk ci ponk islaam ya nga xamante ni juróom lañu koor da ci bokk benn pile la benn pile la ci pili yattiyee islaam ndax ponk yattiyee islaam juróom lañu bokk na ci koor sawmu ramadaan wooru weeri koor kon wooru wooru naafila tamit danga koy duggal ci cosaanu kooru farata bi tii sa bopp lekk ak naan tii sa bopp xeetu bànneex yi noot sa banneexu bakken ci bëgg-bëggam lu jafe la ana ku ko def tey saxaaba bi yëkkati loxoom ne man def naa li ni mel mbokk yi ñaareel bi mooy topp néew dem gunjeeku ci këram ju mujj dafa bokk àq yi juróom ya jullit bi seq ak moroomu jullitam waxtaanee nañ ko fi àq ba jaar diggante jullit ak mbokkam juróom lañu bokk na ci saa yow déggee ne mbokk jullit génn na àddina faatu na solol sa dàll waajalal sa bopp nga dem jullee ko ci këram yu mujj yi ndax loolu àq ba ngeen séq la waaw ndax boo ci tolloo bëgg nga ku la ka defal kon mbokku jullit bi bu tolloo fii bëgg na ku ko ko defal kon àq ba jaar diggante jullit bi ak moroomam ñaat euh, ñetteel bi mooy la yonent bi laaj joxe ñam tey xam ngeen ne borom bi subhaanahu wa taala wax na ci suratul maun nee na jëppi ay jëmm yoo xamante ne programme mu jirim programme miskiin bokkul ci seen agenda yalla ne jéppi na ñu jikkowu jikko ji ni mel moo tax mu ne ara ayta lezi yukazibu bi diin jéppi naa képp ku fenloo sama diine bi mere naa ko fa dalika alledi yadu al yatim bi léegi jéppi naa ñi nga xamante ne duñu sóoraale jirim ci seen dara suuraale wu ñu jirim ci seen lenn faale wu ñu jirim suuraale wu ñu ko duñ ko may duñ ko sarax yàlla nee na ku jikkoo jikko ji jéppi naa la mere naa la léegi borom bi ne jéppi na ñi nga xamante ne wala yaxuddu ala taamil miskin du ñu am xemmemteef ngir jox ñam miskin du ñu am mébét amuñu xol jox miskin la muy dundee yàlla nee na képp ku jikkoo jikko bi mere naa la jéppi naa la kon joxe ñam ci miskin day tax yàlla du la jéppi te keroog ba yonent bi laajee question bi Abubakar Siddiq nee na def naa li ni bu ci topp mooy yonent bi daal di laaj anakan moo dem nemmee ko aji feebar ki feebar koo xamante ne xaw naa découragé ci dund bi nga dem xool ko nemmeeku ko seeti ko lamb sa poos am loo ko jox rawatina nga duy mbuus la muy jëfandikoo ci xeetu meññeef yi yóbbal bankay yóbbaaleel su ko defee mu daldi am courage ne ah ndekete man xaw naa découragé waaye geste boobu nga def ak ñaan baa ba koy ñaanal day tax mu am courage ne a ah, ndekki dund bi jeexagul des na te loolu àq la diggante jullit ak mbokkam moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne majtama'anna fi mri'in illaa daxalal janna jikko yu noobul yii geste yu noobul yii duñu dajee ci jëmm doomu aadama lu dul yàlla dina ko xéewalal keroog bés penc mu tàbbil ko arjanna yan nañu yàlla déggloo xadis bi yan nañu yàlla man jikko yu hadis bi di jàngale ni ñu mun ko jikko bi iznillahi subhaanahu wa taala mbokk yi ba léegi ñu ngi leen di fàttali ne yéen a ngi ànd ñun ci waxtaanu suba bi fii jaar ci Rewmi FM 97.5 ba léegi njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa ci xeet bi tax na ñu fas yéene leen dikkal bunt bi nga xamante ne borom bi tabaraka wa taala moo ko baaxee yenentu bi sallallahu alayhi wa ndax xam ngeen ne lafa fa yàlla du xaaj bay jeex te doomu aadama yi dong ko soxla ma tax na saxaabi bu mag bi di abi hurayrata radiallahu anhu nee na anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal man lam yasalillaha taala yagdabu aley hadisu sahih axrajahu albani sahaabi bi di abi hurayrata radiallahu anhu nee na yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee nañu man lam yasalillaha taala képp ku rëy rëylu muy bañ a ñaan yàlla yaxdabu alayhi yàlla da kay mere allahu akbar mbokk yi fii jar naa taxaw tuuti yow mi nga xamante ne boo jullee parakat da ngay jóg daal di sa soxla taxawal tuuti ñu leeral la fii yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu baaxee nañu képp koo xamante ne daa rëy boppam ba du ñaan yàlla dara du tàllal loxo ñaan yàlla ci lenn du soxla du dara nga xam ñaan yàlla nu mu amee dayoo nga réy réylu doo tàllal sa loxo yàlla di ko ñaan sang bi nee na yàlla dalay mere allahu akbar kon ñu mën a dégg ci maanaa xadis bi képp kuy ñaan yàlla yàlla du la mere loolu la suñu sang bi jàngal sallallahu alayhi wa sallam ba tax na ñaan yàlla boobu noonu yonent bi ne képp ku ko bañ a def yàlla dalay mere yonent bi daal ñu jàngal ne yow doomu aadama bi rawatina yow jullit bi boo demee bay waaj a fattu boo demee bay waaj a tëdd guddi ñaana ngi nii yonent bi baaxee na la ko ñu nit ñu fas yéene koo baaxee mbokk auditeur yay topp waxtaanu suba si fii ci Rewmi FM 97.5 yal nañu ko yàlla buur bi tabaaraka wa taala man loo ñaan bi mooy yow jullit bi yow mi ñuy déglu jëlal sa bikk ak fuy wala nga waajalal sa bopp daal di ñaan ndax dañ na la ne yonent bi nee na képp kuy bañ a ñaan yàlla yàlla da mere yonent bi ñëw jàngal ñu ñaan bi nga xamante ni boo ko ñaanee jamono bi ngay waaj a tëdd sa nelaw bi dañ la koy bindal kom kuy jaamu yàlla ci kaw nga ñaan ñaan bañ leen bëgg a nii moo tax mu ne adkaaru naw yii baat la yii ay baat la yi ngay tudd jamono ya waaj a fattu yow julit bi moo xam ku góor la moo xam ku jigéen waxal baat bi bismika allahumma amuutu wa ahyaa la baat bi di tekki mooy bismika allahumma buur yàlla bu màgg bi buur yàlla boroom nguur bu yaatu bi bismika maa ngi làqatu ci sa tur yu màgg yi maa ngi làqtu ci sa tur yu kawe yi maa ngi làqatu sa sa tur yuy aar nit ki say tur yu nga xamante ne dafa fees dell ak kaaraange ma lay ñaan ci sa tur yu war a mën a aar doomu aadama ci seytaane ak mboolem lakay lor maa ngi làqatu ci sa turu woowee amuutu ci dee bu ndaw ba may waaja suubu nii di nelaw maa ngi lay ñaan yalla nga ma aar sa tuur yi nga xamante ni dañoo fees dell ak kaaraange wa ahyaa ak bu ma delloo di dund yàlla nga ma kontine di aar ci sa tur yooyu noonu nga xamante ne dañoo fees dell ak xeetu kaaraange kon ñaan bi loolu la gàtt na guddut bismikallahumma amuutu wa ahyaa boo ko ñaanee yàlla borom bi wa taala mën naa def sa nelaw boobu ñu di la ci bindal yiw kon yow mi ñuy topp ci réew FM 97.5 lii la la sa yonent bi jàngal sallallahu jamono ba ngay waaj a tëdd comme guddi ba ñu jógee koo nii ñaan bi ngay ñaan waxtu bu ñu toll nii nag képp ku ci yeew laa jàngal ñaan ba war jàng mooy lañu ubbee suñu njëlbeenu waxtaan mooy adkaaru istayqaaz min an nawm yi danga faral di wax jamono wii ñu toll ni képp ku yeewu ci nelaw képp ku yalla delloo sa ruux nga yeewu alhamdulillahi alli baadama amatana wa ilayhi nushur incha allah mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo agsi fu ñu war a yëkkatee jotaay yi war a joxe xibaar ñoo ngi ni taxaw ñu war leen jëbbal béréb bi ngir ñoom ñu continuer jox leen xibaar yi ñu di leen ñaanal yàlla suñu borom tabaaraka wa taala ak borom kër gi ak mbooleem personnel yay liggéey ci kër gi yàlla ñu yàlla boole sàmm yàlla ñu yàlla boole wattu amin ya rabbal alamin allahuma aminna fi awtaanina waslih a'immatana wa wulaata umurina allahuma ihfaz bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan baaraka allahu wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafaani llahu wa iyaakum bima fihi min al ayaati wa zikri al hakim aqulu ma tasmaun wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu wa barakaatuhu wa barakaatuhu